noo ngi lay baaxee ni ñu war a rendee ndax rendi lu mat a bàyyi xel la ndax am na noo koy defee rek mën naa medd kon nag dañ ko war a jàng wala nga laaj ko ñu ko xam bañ leeral la ko li ci gën nag nga jubale ko xibla penku tërale ko wetuk càmmooyam moom li ngay rendi fam nag nopp bi féete kaw muy nopp ndey jooram ñoddi ko ba fa nobba yam foofu mooy nattukaay bi foofu ngay teg paaka ba wax bismillahi allahu akbar wala bismillahi wallahu akbar daal di wax ci sam xel ne fas na maa yéenee rendi gàtt bi walla la ngay rendi ngir daganal yàpp bi man koo jariñoo ci rendi gii ma koy rendi loolu nga yéene ci sam xel daal di dawal nag paaka ba ba ñaari siddit yu mag ya ak buli lépp dagg boo bombee paaka ba nag ba deret ji génn nga wax allahu akbar boo tag boo teggee sa loxo nag nga daal di wax rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim boo dawalee paaka ba sëddiit yi tàmbalee dagg mu teggi ko kon su suñu ko ci gaawee delloo dis na ko lekk bu ñu ko yeexee delloo nag te lor waralu ko kon kenn du ko lekk te it nag nga bañ a tàggale baat ba ba mu tàggoo xanaa mu wër ko rek wet gu ne ba mu wër la sidit dagg na bëli ga dagg na waaye doo ko tàggale complètement bu ko defee nag buñ tàggaloo it du ko tee dagan waaye bëgguñu ko bëgguñ ko ko defee noonu loolu dafa mat a xam ci rendi bu dee ganaar nag war naa warale paaka ba ca gannaaw ak ca kanam ba sidit yu sew yëpp dagg waaye moom it bëgguñu mu tàggale baat ba completement loolu lu mat a xam la rendi nag ab jullit moo koy def waaye it ab dof du ko def ko amum xel moo ko def